Amin wa jàngin jëf euh, bokk yi nga xam ne yéen ngi bàyyi xel ni mu leen ko waxee woon sànq rek ci kër gi foofu Serigne Touba nekkoon ak mag ñi doon fi jàngale waaye doon fi tarbiya mel na bi ñu fi bàyyi gis ngeen jaar nañ ci jàkk ji nga xam ne ñu ngi ko fay naal ko fi tabax macha allah gis ngeen taxawaay bi ci ak mboolem fédération ak mboolem taalib yi noonu nag ñu ngi ñëw fii nga xam ne fii la ko alayhi salaam fekkoon fii la ko joxe werdu murit kon def mooy teewlu ci Cheikh Abdoulaye Dieye mu dikk ci ak leeral nu ma teewlu ko jàngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu baax te di leen ziyaara di jiital ñaanal Cheikh Mamadul Muntaxa ibnu Cheikh Mamadul Bachir yàlla na ko suñu borom yàggal lool te may ko wér defal ko mboolem jabootu Cheikhul Xadim gi yëpp di nuyu nag euh, mbokki taalibe yi nga xam ne ñoom la ñu fekk ci chantier bu mag bii muy barab bi nga xam ne bi Serigne Touba nekkee fii ci Sarsara moom la defoon jàkka di fi jullee ay waxtum juróom Euh, di bàyyikoo ci kër gi di ñëw fii te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ci benn hadis ne euh, képp koo xam ne jóge na ci barab jëm ci barab te yàlla yëkkati ko mboolem tànk yi nga xam ne dox na ko yëpp suñu borom da koy bind ay jéego ay jéego yu tuyaaba loolu moo taxoon sëriñ bi euh, kër daawu ci jullee waaye fu mu masaan dëkk day wut jàkka wacc al buyuti kullaha masajid bi nu ñëwee ci barab bu tedd bi itam ginnaaw téeméeri at yu tegal li ñu fi njëkk a naal ci ab liggéey muy ab chantier mooy jumaa ji jumaa ji itam soxna maam Issa mi nga xam ne moom la ñu àndal ak délégation bàyyi ko Touba ak suñu bokk yi nekk Nouakchott kenn ku nekk di yëkkati aw ñaqam di ko jaarale ci loxob sa jëwriñ ñu di ko indi ci liggéey bi daaw indi nañ fi 32 tonnes ciment euh, waaye lii ab soññe la ndax fi ñu bàyyi woon jàkka ji daaw bu ñu ñëwaatee ren fekk mu avancé loolu day tax nit ñi gën a sawar waaye nag leeral bi ci defaat rek mooy euh, bu ñu tam bàyyi suñu laxasaay ndax day bërëb boo xam ne boo fi tabaxee jàkk ba mu àgg day mel ni ñaari jàkk nga tabax ndax li fi indi ciment bi di fi indi fer di fi indi ndox di fi indi ouvrier yi di fi indi li ñuy lekk ak li ñuy naan loolu soo ko xayma day tolloog li ñu def ci jumaa ji kon bu doon biir Nouakchott mën naa am tey jumaa ji eh, ñaaram dana ci nekk waaye bu dee fii nag eh, day mel ni benn mocce bi rek mooy ñëw beneen bi day dem ci fere yi kon loolu moo tax liggéey bi demee nii waaye ñu ngi soññaat bokki talib yëpp ñu xam ne àggagut te feeg àggut nag ñun rek ñoo ko war a àggale kon nag képp koo xam ne soxna si nee na mas nga cee def sa dërëm yàlla na la ko suñu borom fulal te yokkal la ko ba su ëllëgee nga mën a def lu ko ëppaat ci barki Serigne Touba ren ji bi ni ñëw tam am na lu ñu fàggu loo xam ne bu Serigne bi egsee ak commission bi yor liggéey bi danañ ko teg ci seen loxo waaye bu ñu ko tegee ci seen loxo ba pare tam soxna si nee na mi ngi soññaat bokkam boppam di soññu bokki taalibe kenn ku nekk nekk nga xam ne yaa ko fa représenté loo xamante ni bii dafa jëm ci waajtaay ci liggéey bi nga xam mooy liggéey jumaa ji ndax béréb bii sëriñ bi nekkoon kat mënuñ ko fee defal lu ko gënal defal ko fi néegub yàlla ndax daa waxoon ne waj al buyuti kullaha masajid sama kër gu nekk rek atteb jàkka la am kon nag nañ fexe ba góorgóorlu ci liggéey boobu mu àgg ak jàmm ba Cheikh Mouhamadoul Mountakha ni mu sémbee ñu war a inauguré jumaay Masaalikul Jinaan ñu dem ba laaj ko ndigal mu yabal fii nit wala mu ñëwal boppam ñu inauguré jumaa ji ndax loolu ndamam sëriñ Tuubaa la fii ci barab bu tedd loolu mooy kàddu yi ñu ñi nga xam ne a jiite liggéey bi ñu ngi leen di siyaar di leen ndokkeel di ñaan yàlla may leen ci ndam soxna saa ngi leen di nuyu di leen siyaar di sant ñëpp di leen gërëm jërë ngeen jëf waaw noppee fii nag dañuy dem ci barab bi mu gisee woon ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci bisu ajjuma nekkoon ci weeru koor di bisu laylatul xadar foofu la ñu war a jëm bu jógee fii ci jàkk incha allah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu nuyu bu gën a tedd di leen ziyaar tey ñaan yàlla suñu borom defal ñuy xéewal ba niñ bëgg ci jumaa yi Sëriñ Tuubaa ji suñ borom defal ñu ko te xel dal na ci sax alhamdulilah ndax ñu ngi ko ànd ak jullit ñëpp xanaa di ñaan yàlla rek suñ borom defal ñu dégg topp di ñaan yàlla tamit suñ jiitu yàlla teg suñ kanam suñ borom dëgëral leen ak Cheikh Sidi al Makhtar Mbacke ak Soxna Maam Aïcha Mbacke mu jóge Touba sama xol dafa fees moo tax li ñu naan wax tey mënuma ko mais sant naa gërëm naa maa ngi ñaan yàlla ci barke Seexul Xadim mu faj soxla yi te dëgëral tànk te jox ñu xéewal ñu ci def allahumma salli wa sallam ala sayyidina ñu sante yàlla julli ci bi sallallahu alayhi wa sallam di santaat Serigne Touba Mbacke mi suñu yaakaari tey ak ëllëg bu baax suñu njëbal ci Cheikh Massamba mi suñu bunt ci sëñ bi di bu baax teewaay bii nga xam moom lañ teew fi tey muy teewaayu jaamu yàlla di teewaayu dundal sunna si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne at ma jot ñu def ko muy béréb bii nga xam ne moom la Serigne Touba doon jullee ci suuf si sedd si di suufu eh, ardu saalihin suufu gaa yu baax yi <coughs> di ñaan képp ku fi teew rek yal na yàlla faj say aajo ndax jullit yëpp lañ ko àndal umma islamique yëpp rawatina taalibe Serigne Touba yi ñuy jël seen ñaq di jóge Sénégal di traversé di ñëw di ko fi def ngir di sàkku ngërëmul Serigne Touba ñoo ngi ñaan yal na nu ko Serigne Touba nangol yàlla buñ ci gis bop bopp di leen xamal ni nag ñun duñ dara jaam jaamaat Serigne Touba donc lañ bëgg ñoo doon dara bëgg ñoo doon dara na ko sëñ Massamba doon defee fii doon jaamub Serigne Touba ba naar ba fekk ko fa nekk ndax kii sa jaam la tànk rek lañ jaaraat ñu ngi sant di gërëm ñëpp asalaamaaleykum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 di sant suñu yaakaar yi ëllëg muy cheikhul xadim di ñaanal bu baax cheikh Mouhamadul Mountakha ibnu cheikh Mouhamadul Bachir mi nga xam ne moo ko fi nekkal tey jàmbaari lislaam joo xam ne ñëpp xam nañ ak jàmbaaram di taalibeb Serigne Touba boo xam ne ñëpp xam nañ ak taalibeem ñu ngi ñaan yàlla ci barkeb Serigne Touba suñ borom yàggal ko fi lool te mu mu yàgg jiite yoonu murit te am ci ay ndam yu yaatoo yaatu. te ndam yooyu yàlla nañ ko bokk ak moom di ñaanal itam jëwriñam di sëriñ Cheikh Jëmb Fall mi nga xam ne moo fi nekkal maam Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridine moom itam yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér di nuyu nag bokki taalibe yi ñu fekk yëpp ak yi ñu fi fekk ndax barab bi moom ab taalibe rek la xam te ku fi ñëw rek ak taalibe la yëkkati ak xañ su telu xañ lu baax kon nag ci turu soxna maam Issa Mbacke mi nga xam ne moom la ñu àndal. muy suñu kilifa ak Serigne Siri Mbacke Mourtada mi nga xam ne moo jiitu ci liggéey bi ne ci kanam ak mbooleem koo xam ne da nga bàyyi ko ci barab ñëw fi ñu ngi leen di nuyu bu baax te di leen ziyaara te di leen dokkeel bu baax a baax a baax te daje bi ñu daje fii yàlla bu mu doon suñ mu jug daje ci barki Serigne Touba te li ñu tax a jóg tam ñu ngi ñaan yàlla ci barkib Serigne Touba kenn ku ne teg ci sa loxo mu mel ni nag. bu ñuy wax sarsaara dëgg dëgg dëgg fii moo tax ñuy wax sarsaara ndax barab ba ñu dal fa xayma ya foofu moo nekkoon kër sëriñ bi barab beenu jógee mooy jàkka ja waaye barab bii nag fi la sëriñ bi noon nekk ci weeru koor yu mu njëkk nekk gànnaar daan fi daje ak mag ñi ñu daan bàyyi ko Sénégal di ko fa si sëriñ bi wax ne lu jiitu mag ñi di bàyyeekoo sarsaare di ko fekk si bokki naaram yi nga xam ne daa bokk ak ñoom lislaam te am ay ndono ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñoom day ñoo njëkk am pas-pasu bàyyikoo ci seen dëkk yu mag ya bàyyi seeni soxna ak seen doom ak seen i njaboot laxas ñëw fekk fii Sëñ Tuubaa te bi ñëw dañoo doxoon muy waa Bani Daymaan te Abdullahi nekkoon seen kilifa loole moo waral Sëriñ Tuubaa bind xaside gi ñuy wax am lii wa shukri liman kulli bihi saara lahu ridan duuna suxtin inda sarsaara lahu sanaahi wa ridwaani bila shaqatin mushxaada li min bani daymaana anshaara kon bani daymaan googa moo taxoon muy wax wax ja waaye ñëpp ci tàbbi lillahi kulli la daa abaari makrumatan min hartaal naa wa fiha jama man saara kon li laxas nag ci olof mooy comme ñun niñ def rek noonu la naar yi def ñëw siyaare ko mu ne ñooñee laxas nag bàyyi seen i kër seen doom ñëw siyaare ko ñooñu la wax ni inna lazina ila sar saara xat xasadu ziyaarati faaraxu daare ni aw saara loolu daal moonu indi ci barab bi ñuy xeeñ suti jeexit yooyu Serigne Touba nag 1908 la jóge gànnaar 1908 ak 1918 téeméeri at ak fukk la bi fi Serigne Touba jógee ak léegi téeméeri at ak fukk la téeméeri at ak fukk nag booy xool fi jamono toll waaw nañ ma dimbali ngir jëmi suñu waa wax yu baa wax yu sew yi wala ma noppi man ndax munu non dafa métti loolu daa métti dañ dégloo sëñ Tuubaa munuñ ciy wax kenn di ruumandaat na ñëpp déglu waaw non bu bu ñëpp noppee rek li wax ñëpp dégg ko na ñëpp noppee dama ne téeméeri at ak ak fukk ba fi sëñ Tuubaa jógee ak léegi 1908 la jógee gànnaar dem ci yéen téeméeri at ak fukk yooyu nag ci ginnaaw bu ñu xoolee ni jamono doxe dañuy xam ne ci wet yëpp jamono daa soppeeku ci gën a neex kon téeméeri at ak fukk jamono daa naqari woon lool li am léegi lépp amutoon muy ci wàllu li ñuy jëfandikoo di ko lekk ak li ñuy naan ak li ñuy sol ak li ñuy ñëwee dara bokku ci woon ak mag ñi niñ fi doon ñëwee mag ñi biñ fi dan ñëw kenn ku ne benn yëre rek nga doon yor su ñëpp dégloo rek li may wax ñëpp dégg ko rajo bi jaru ko ndax day yàq image yi na ñëpp déglu rek waa dama ne sëñ Touba bi mu fiy ñëw booba ñam amul ñam ñam amul wu ñuy lekk yére amul yu ñuy sol mag ñi ku ci mas a sol benn yére da koy awante sooy fóot yére ba guddi nga koy fóot ku ci mas a xiif da xiif ba àgg ci ñëw ci seriñ bi di ko diis xiif bi seriñ bi ne jël leen laxasaay yi takk ko ci ndigg yi ñu jël seeni laxasaay yi yeew ko ba seeni biir dëgër ngir ñu mën a taxaw waaye bu sëñ Tuubaa ne tëll génn ba tàmbalee waxtaan ak ñoom dañuy regg ba mel ne dañoo añ bay soog a noppi su dee waxtu reer day mel ne dañoo reer ba noppi bu dee waxtu ndékki dañuy mel ño ndékki ba noppi loolu nag yonent bi da ko daan def yonent bi da daan waar saxaba yi ba duñ bëgg dem marché jaay yi yonent bi arrêté waaraate wi ba seen température wàcc mu ne dellu leen ca marché ya ndax loolu daa bokk ci sunna ak lislaam ñu dellu fii lu ne nit daj na ko fa du jar nag ñuy tudd mag ña ndax da ci am loo xam dafa yéeme waaye am na mag moo xam ne bi mu yegsee gànnaar tànk yi dafa newi ba mënut a sumi tubéyam ndax ndax météo dox bi kooka ñaar fukki fan ak juróom-benn la dox xam naa aw turam xaw am santam waaye du ma ñaar fukki fan ak juróom la dox egsi mun ta sumi tubay ji ngir tànk yi daa newe sëñ Basiiru la fekk fii sëñ Tuubaa fatu sëñ Basiiru am fukki at ak juróom mu ne ko ndongali may ma ndox sëñ Basiiru daw may ko ndox ñu nekko ko doomi sëñ Tuubaa nga yónni mu ne xaw ma ko woon ndax damaa mar daal di woo sëñ Basiiru ne ko maa ngi tuub ci yónni gi ma yónni doomi borom Tuubaa sëñ Basiiru ne ko jéggal naa la mu ne ko damaa bëgg ñu fasante kóllëre sëriñ Basiiru ne ko sañu maa fasante kenn kóllëre sëñ Tuubaa waxuma ko da bàyyi ba sëñ Tuubaa génn su ma ko tàggoo bam nangu ma fasante yow lere bi sëriñ bi génnee sëñ Basiir wax ko ko sëñ Tuubaa ko ko Basiiru fasanteel ak moom kóllëre ba yow mal xiyam ñooñee ba léegi taalibey sëriñ Muntaxa lañ armeel yi puufa yi am na kuñ fa denc ku ñuy wax sëñ Makasaar bi mu niyoo sëñ Tuubaa da koo niyu rek wàcc ab liggéey sëñ Tuubaa wax sëñ mu amal ñu na ak mag ñe ne leen Makasaar yóbbu leen ko ci armeel yi puufa denc ko yéen ñi koy gunge nag du ngeen tàbbi sawara am na tam ku ñuy wax sëñ Ibra Joor Amar sëñ Ibra Joor Amar fii la ko sëñ Tuubaa yónnee nekko ko damaa bëgg nga dem Ndar wala Dagana nga wutal ma fa téere bu ñuy wax almuwaahibu la duniya te mag ñi bu leen sëñ Tuubaa masaan yónnee lu jafe feek amuñ ko duñ dëpp Cheikh Ibra Joor dem yàgg fa lool di wër marché Ndar ya di ko wër di ko wër ba jeexal marché yi waaye amul téere bi Cheikh Ibra Joor wëlbatiku ñëw Dagana di ko wër amu ko mu wëlbatiku ba ci genn gàddu naar gu ñuy wax euh, euh, Ibrahima ibnu bu euh, maa ngi fàttali tur wi mu laaj ko ne ko damaa bëggoon fu ma dalloo Ahmadu ibnu Budd la tudd Ahmadu ibnu Budd mu ne ko damaa bëgg fu ma dalloo Ahmadu ibnu Budd ne ko man nga fee yendu defal ko ay tiranga defal ko taaya defal ko ay njari naar mu lu ba pare nag waaye nee na sama tànk yi nagam na ngir dellu ci Sëñ Tuubaa Sarsara ne ko aw ma téere bi dara jaru ko waaye itam waxuma tam naar bii ne ko téere bi lay wut nee na mu ne ma foo jëm ma ne ko Sarsara mu ne ma fa la sëriñ bi nekk ma ne ko waaw mu ne ma seriñ bi de am naa yéene jox ko addiya xaaral ma dugg ci biir sama bagage daal di dugg ci biir bagaasam am daal di jël almuwaay bu la duniya ñëw jox ko si Ibra Dior Amar léegi nag sëñ sëñ Ibra Dior Amar moomu sëñ Ibra Yor Amar moomu naar booba ne ko man day Cheikh Ahmed Tidiane mooy sama sëriñ man Ahmadum la budd waaye dama lay yóbbante ci sëriñ Touba ñaari yóbbante yoo xam ne ñaari yóbbante yooyu bu fekkee ne sëriñ bi liñ koy waxal ci ak wilaaya ak jege yonent bi am na dana ma ci wax dara ne ko benn yonent bi nee ko dama am yéene gis Cheikh Ahmed Tidiane lool te musuma koo gis su ma ko gisoon ci gént sa sant ci yàlla yéene naa tam gis rasulullahi musuma koo gis léegi nag damaa bëgg boo demee nga waxal ma Serigne Touba ne ko na ma niyul Cheikh Ahmed Tidiane ni xam naa ne mi ngi koy gis te nee ko na ma niyul rasulullahi mi ngi koy gis bi sëñ Ibra Dior Amar ñëwee bokk ko sëñ Touba dafa bind ak xasida goo xam na mi ngi tàmbalee ci rabbu salaamin nga xam ne dana niyoo bii nga xam ne moom la doon niyoolu te jaarale ko ci moom niyoo bi ñim mu ko doon nuyu jot nañ ci te li xam na li tax mu xam ne jot nañ ci Ahmadu ibnu Budd moom ma jox téere bi ma doon laaj jaarale ko ci sëñ Ibra Joor Amar moom su ëllëgee buy faatu Jibril day ñëw ak Rasulullaay ak malaaka yi ñu escorté dem ba ci àjjanaam biñ ko ko waxee nag ne mu ne tam mu ne tam maa ngi leen di dénk ne leen sëñ Tuubaa bis bi may wàcc liggéey su munta ñëw na yoon yónnee bëgg naa loolu amoon na nag doomam bu tudd Ahmed guddi gi nga xam ne nag moom la Ahmadu ibnu Budd wàcc liggéey dañoo julli timis ba pare sëñ Tuubaa woo Cheikh Ibra Dior Amar ak ñenn ci mag ñi ne leen tey jii la Ahmadu ibnu Budd wàcc liggéey damaa bëgg ngeen dem. Ahmadu ibnu Budd nag bi mu wàccee liggéey ci guddi gi doomam ji tudd Ahmed dafa génn ci nag wi doggali ko ba pare daal di cappandaayoo nee na bi mu cappandaayoo nag li ko jaaxaloon mooy nu muy def ba sëñ Tuubaa jot xibaar bi nee na fi mu cappandaayoo jël ay loxoom teg ci boppam. nee na dafa dégg rek bur wi ñuy ñëw rek mu ne ana ñooñu rek ñu ne ko ñun la dawi sëñ Tuuba wax nañ ne keroog njañ yi da ko doon suqi da doon suqi njañ yi di ko buddi loolu bokk na ci kéemaan yi fi am bokk na ci kéemaan gi gën a yéeme nag mooy gis gi sëñ Tuuba gi si yonent bi ni ko yàlla bindee ndax borom xam-xam yi da cee am ku ñuy wax su Uwaysu Uwaysul Xarani xare Xarani bi yonent bi woote yaayam daa tawatoon ñu ne ko doo wuy yonent bi mu ne déedéet du ma wuy bi ñu ne ko lu tax mu ne damay toppatoo sama yaay ba sama yaay faatu bu sama yaay faatoo nag te yonent bi nekk fi ma ziyaari ji yonent bi bu sama yaay faatuwut te yonent bi jiitu ko baddali gi ma doon baddali sama yaay nekk dem ci yonent bi ci man pas-pas boobu nag ci la ko yàlla ne ko yow sa pas bu yaatu bii ci laa lay jegeele rasulullahi ba nga jege ko ba mel ni ña toogoon ca penkam lañ am da nga am lu ko ëpp léegi nag moom gisut bi waaye gis na Aboubacar Siddiq ak Seydina Omar benn bis mu dajeeg ñoom te ñoom Abou Aboubacar Siddiq Omar Ousmane Ali ñooy xulafa arba ñoo gën a jege yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na ñu ne ko yaw yaay uwaysu uwaysul xarani mu ne waaw ñu ne ko waaye yow lu tax bi yonent bi wootee ñëwoo mu ne leen sama yaay laa doon toppatoo waaye yéen ñii toogoon ci penku yonent bi maa leen gën a jege yonent bi ñu ne ko noo ñu ko mën a leerale ci ak ragal yàlla mu ne yàlla suñ borom day dindi na maqaama yi dox sama digganteeg yonent bi di ko dindi di ko dindi di ko dindi ba mu des juróom-ñaar fukki junni kiiraay mu ne ma uway su taxawal benn kiiraay su ma ko wireetee su ma ko dindeetee da ngay seey ci leeru yonent bi te yéen te yéen fa ma àgg su ngeen fa àggoon Aboubacar Siddiq Omar ak Ousmane Ali ngeen seey kon maa leen gën a jege yonent bi ñu ne ko li nga wax dëgg la kon ki gën a jege yonent bi nee na dama koy jege ba ci juróom-ñaar fukki junni kiiraay sama borom boo doxatee benn jéego jëm ci moom seey sëñ Tuubaa nag moom dane dalani allahu alallahi bila taqarurin wa umuri taqabala waxaan ne yàlla ommat na ma ba ma ñëw ba toog ak yonent bi waxaada nii muhammadin li sama de yonent bi jàpp sama loxo ne ma kaa ñu dellu ci yàlla mu waxaan ne ah, ah jëmm jooju nga xam ne moo gën a jege yonent bi muy waysul xare nii sëriñ bi moom dane arayta nii arayta nii sama borom wan na ma sirru rasulullahi te sirru rasulullahi bokkut ak rasulullahi sirru rasulullahi mooy mooy mooy leer gi bi mu ak leer nga xam ne suñu borom dafa googu jëmm nee na leer gi sama borom wan na ma ko leeru rasulullahi sallallahu alayhi wasallam nee na tam yonent bi suñ borom naan loo ne ko ci géej goo xam ne yonent bi dafa naan ba si gi ne ma Ahmadu naanal sëñ Tuubaa nee na bi ma bi ma bi ma géej gi ba naan ba noppi dafa mel ni ab nawet mu taw ndox mi bari ba noor bi ñëw fetti fetti yi nekk ji nee na noonu laa ko def léegi nag am na ci borom xam-xam yi ñu wax ne Rasulullah kenn dootu ko gis Jibril ken dootu ko gis Sëñ Tuubaa weddi ko Sëñ Tuubaa nee na maa ngi njëkk a gisee Jibril ci kaw suuf Mbàkke Kajoor nee na bi sama baay faatoo Sëñ Tuubaa nee na bi sama baay faatoo Yonent bi sallallahu alayhi wasallam boobu laa ko njëkk a gis mu tuñanteeg man ne ma teggin yi nga doon may sa baay jeex na dem na tey nag rabbi ashabaka bil imma wala turabbihim bi darsi fa xat ku ñëwoon te itte yëkkati la yóbbu ko ci yàlla ku ñëwoon te jàng képp yëkkati ko na dem jàngi nee na kere laa njëkkee gis rasulullahi sallallahu alayhi wasallam nee na ñaareel yoon bi ma ko gisaat mooy bi ma ñëwee Touba ba am fi juróom-ñaari at ba nekk ci jàkkay sëñ Mbacke Madina ji ci Daaru Xuddoos nee na nee na jàkka joojee fa laa gisee yonent bi am ñeen fukki at yu manqué ñetti weer nee na yonent bi ma Ahmadou ma ne ko waaw mu ne ma dama laa dikkal tey nee na mu ne ko loo ma dikkale mu ne ko da ngay sama soppe di sama xarit te nit yàlla yi ko mas a toll fii nga toll am lu mu bëgg loo bëgg nee na ma ne ko ñii nga àndal ñu nekk sa ginnaaw muy waa ahlu badar bokk ci ñoom laa bëgg yonent bi ne ko loolu mënut a nekk mu ne ko lu tax mënut nekk mu ne ko ñooñu xare jaay seen bakkan lañ def te loolu jeex na ca jës bu ne tanaasuhul mawtu maha wal kullu min um sujaha bi leen yonent bi yee guddi ne leen kaay ñu xare ji dañ na ñun ñëpp joxe nañ suñu bakkan ñu ne ko nag joxe bakkan jeex na kon nag ginnaaw ñii dañoo joxe woon bakkan te yow laajuñ la bakkan munoo am liñ am yonent bi ne kon ndax yàlla mënut a changé loolu mënu ko échanger te xoolal léeg-léeg nga jënd benn garab ci pharmacie ñu ne la garab bii am na beneen bu koy remplacer ñu ne ko li saa bay defoon li koy remplacer mooy ànd ak say noonu juróom-ñaari at te doo leen laaj loo lekk doo leen laaj foo jëm doo dox di geesu kenn du la xëbal ba nga tiit doo mooy yàlla te luñ la def lu miti miti nga muñ ko xam nga lu ko sëriñ bi tontu ne ko sama yaram ak sama bakkan dama ko sàkkul bay xam lu mu attan lu mu waaye lu sama bakkan attan sama ngor ak sama jom dékku na ko yonent bi nag ne ko xam nga luy sama sas ci loolu mu ne ko déedéet mu ne ko nattu buy ñëw rek su nattu bi waa ñëw naa la wax nattu bi suba lay ñëw moo tax sëñ Abdou Lahad ne fukki fan ak juróom-ñaar ci safar bu ñëwee sëriñ bi day mel ni ndongal ndongal yarlu yarluwaan ngir xaar nattu yi danaan tekki rek di xaar nattu yi nattu yi di di jooru ci kawam rek suuratul ahwaali mooy suuratul baqara la am ci nattu mooy ñaari téeméeri nattu ak juróom-ñetti fukki nattu ak juróom te buñ ci teg benn yonent mu faatu sëñ Tuubaa dékku ko nee na fi si amati yan àggoon abul asan àgg fa abdul xaadir ji leen àgg fa ba nga xam ne ñoom bañ fa àggee dañ ne yàlla doyal nañ li ngay séddale doyal nañ ci sëñ Tuubaa nee na man ma fa àggee ab téeñ laa ko def ab téeñ pour waaje yenu nee na moom ab téeñ la ko def ngir yanu mu mu te booba l'islam daa tumuranke moo tax mu ne ca ca jawartu nasa ali l'islama inda xurbati la dal sha'iri mu niiru turbati l'islam demoon na sànku ji maa ko dabi indiwaat ko gabon nag nee na gabon nee na ba muy gis nag rasulullah ca gabon dafa dafa ànd ak jibril loola nag la naari gànnaar yi di laaj nag mu jaaxal leen dane dafa am benn bis ñu tëj sëñ Tuubaa ci ab kaso boo xam ne ñaari téeméeri militaire fa nekk sëñ bi dem ba ca wet ga muy jullee ka jàng alxuraan ñoom ñuy mooy ak naan sàngara waaye sëriñ bi nee na mooy yàlla lum la jege jege te defoo doo ca bokk nee na nag sëñ bi nee na ñu nekk ba fajar rek ma jóg man di julli ji nee na ñoom ñu jóg di maaj nee na seen commandant mi ne leen ay wo ñu dem maaj ñu dem maaji léegi nag sëñ Tuubaa ne lim fanaanoo ci kaso bi ñuy mooy yàlla naqare na ci xolam te bu dara naqare ci xolam yàlla fajal ko ko nee na te yonente bi amul droit guerre xeex amu ko droit léegi yàlla ne yonente bi damaa bëgg nga ànd ak waa ahlu badar ngeen dem tiital ñaari téeméeri militaires yooyu nga xam ne ñoo fanaanoon ak sëriñ ci benn kaso di mooy yàlla nee na biñ ñëwee nag na na na nañ demee woon badar noonu lañ ñëwee dañoo wàcce kaala ya yor méteel ya yéeg kaw fas ya ñenn ci militaire yi ne waa waaw ñun liñ gis ndax gis nga ko ñu koy waxante di ko waxante ba ñëpp xam ne daal gis nañ daal lu leen jaaxal nee na ñu daal di jugaat nee na ñu daal di jugaat daal di arrière ndànk arrière ndànk arrière ndànk ba delluwaat ca camp ya daal di toog nag tayal lool nee na bañ toogee tayal lool nee na bañ toogee tayal lool nee na ñu ne leen waaw yéen lu xew tey kenn ku ne di ko waxante waaye am nañ gàcce wax li xew capitaine bi ne leen commandant bi ne leen man de li ma gis damaa xamul gis ngeen comme de ñu ne ko gis nañ ko de sàllaaw ndekke day jëmu ji kenn la ci niñ koy gisee waaye ndekki kii bu soxla woon ñu ko xeexal am ñu ko xeexal ndax liñ gis tey ci fajar yéem nañu sëriñ bi loolu foofu nag loolu foofu laa ji am ndax am na yeneen ne ci topp waaye euh, sëriñ bi bi mu ñëwee ba gànnaar daa am benn naar bu ne ko man de li nga wax ne gis nga rasulaay jaaxaluma waaye sayidul amin laa xamul koo ci koo ci jublu mu ne ko Seydou Amine Jibril laa ci jublu mu ne ko Jibril kat nee nañ dootu wàcc sëñ Tuubaa ne ko ñu ko wax xamuñ lu ñu wax daan ne ko Jibril ndaw la ñuy yónni la te saa ko yàlla yónnee mu wàcc daan ne ko moo ko yónent bi sallallahu alayhi wasallam ñoo jiite woon ña ma fekkoon waaye yooyu yëpp yónent bi bii daa ñëw di ko ñaax bii mu ñëw di tiital ay noonam waaye fii ci Sarsara nag daa ñëw ne ko sa borom nee na ku liggéey fayu sa sa paye ngii fii lañ ko faye fii fii ñu toog kañ ban bis lañ ko fay ban bis lañ fay sëñ Touba weer yëpp weeru koor a ci gën guddi yëpp guddi ajuma ci gën waaye nag bu at mi guddi yi ci nekk boo ci jël génn guddi laylatul xadar ci gën weeru koor guddi ajuma di laylatul xadar ca ñaar fukki fan ya la rasulullahi ñëw fii bila bila naw min bila naw nag ci lu nelaw du gént du jeneer du jeneer nee na na yàlla binde yonent bi noonu la yonent bi ñëwee ci man nee na indil ma al wirdul maxuus min allahi bi waasitati rasulillahi sallallahu alayhi wa daan ne ma Ahmadou Bamba sa borom nee na ba nga nekkee Gabon di liggéey da la doon dig rek ne la danaa la fay dig tey tey ku doon liggéey ci ñun su amee weer fayuñ ko mu ñaxtu waaye moom daal liggéey fanweeri at ak ñaar suñ borom nekko ko dinaa la fay de waaye suuf sama lay faye suf suñ tànn lay doon suuf sama lay faye suuf su man jaamu yàlla lay doon moo def sëriñ bi barab bi al ardu saalihin la ko tuddee woon suufi nit ñu baax ñi boo ko fekkee xamoo da nga ko man kon nag ku ko man at mu jot ñëwal Sarsara say bàkkaar wàcc ndax xaalis jëriñu dara xam nga xam nga xam nga lu sëñ Tuubaa waxoon borom daarul mu oti ci am mbaar la ko fekk ci njaareem maam Thierno Urfati borom daaru toog ci biti ngir warmal sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa ne ko Thierno mu ne ko Mbàkke mu ne ko ñëwal ci mbaar mi borom daaru ne ko rus na maa toog ak yow ci mbaar mi sëñ Tuubaa ne ko rus na maa toog bàyyi la ci biti ne ko Cerno mu ne ko Mbàkke mu ne ko jàll sil mbaa jàppoo ne maa ne la sil yàlla moo ne ma fàttalikul ba ngay ànd ak Cerno te dara amut woo ko mbaar mi borom daaru ñëw ci biir mbaar mi borom daaru ñëw ci biir mbaar mi kere nag la sëñ Tuubaa di attaaya jox daaru attaaya xëy na sëñ Moudou Awa Balla sëñ Moudou Awa Balla da doon nelaw sëñ Moudou Awa Balla da doon nelaw ngir dox ba sëñ Tuubaa ne ko Cerno kii kum doon mu ne ko Muudu Awa Balla sëñ Tuubaa ne ko fëgg ko mu jóg borom daaru fëgg ko mu jóg sëñ Tuubaa ne ko Ceerno mu ne ko Mbàkke mu ne ko ak maa gëj gis kuy nelaw ko Ceerno mu ne ko Mbàkke mu ne ko mbaar mi daa am ay yendeer mooy daa am jeexiti naaju yu dugg ci miir mbaar mi léegi nag jëlal ci xaalis bii nga fattal ma bunti mbaar mi ay kayit borom daaru jël kayit yi commencé fatt mbaar mi am ñu ne waaw sëñ Tuubaa xanaa daa xamul xaalis da jox addi Serigne ko jox ko jaayoon de baax na baax na baax na mu jàng mu mu ne ko mu ne ko Thierno xaalis fatt buntu rek lay jëriñ Thierno mu ne ko Mbacke xaalis fatt buntu lay jëriñ kon nag damay bañ a déggati ku naan ñaari mbir ngi yoo xam ne bugguma koo dégg neexuma mooy nga nekk Touba naan dëkk bi daa dëgër wala ñu woote dara ci sëñ Touba nga naan addina jamono neexut sëñ Abdoulahat nee na sëñ Abdoulahat nee na nawet bu nangu xol yu nangoo ko gën dangay ngay ba sab xol nangul sëñ Touba sëñ Fallou mee ne ma le bi ñuy ñëw daa am ku mu wax Sar Saara ne ko paas bi 40 la. mu ne ko amaguma pësteefu dem màggal gu ñuy passé quarante mille waaye waaye murit bi murit bi murit bi lu mu am ba denc ko ba jàpp ne moo ko moom su jàppee ne moo ko moom xanaa la mu waxoon da ko fàtte bi ngay jébbalu da ngaa ñëw ni sëñ Tuubaa jox naa la sama bopp addina jox naa la sama bopp àllaaxira kon moom ma doo ci sa bopp dara kon nag xaalis buñ ko jiital nañ jiital wut ngërëmal yàlla mag ñi doon ñëw fii ngërëmal yàlla lañ doon wut ngërëmal yàlla loolee am nañ ko ñun ñi fii ñëw suñ wutee ngërëmal yàlla danañ am ngërëmal yàlla soxna si ñu àndal nag soo gisee mu man lii mu man du moom de sëñ ndax gis nga sëñ soo amee fulla ba bàyyi lépp jàpp ko mu am fulla nag ba yoral la sa te sëñ Tuubaa nee na man du ma faralaa xoo bugguma Moustapha bugguma Basirou bugguma Mouhamadou Fadal bugguma Mouhamadou Lamine yàlla laa bëgg ak rasulullah widaadi widaadi li rabbi wal muqafa wa isbihi wa man abbuhum wallahu li kaana bil afwi man ñëpp samay doom lañ ADS lañ ci baax. soxna si soxna si man duma ma waxal kenn lu ma gëmut dama ne sang du ma waxal nit lu ma gëmut barki Serigne tuba su jaarutoon ci yoon mbooloo mi dañ ko topp su jaarutoon ci yoon. mbooloo mi dañ ko topp man 2007 laa ko xam le 5 septembre ca Ndar sama directeur Mortala Fall boole ma ak moom may ku compliqué ma ànd ak moom di ko seetlu di natt ay pas-pasam ba xam ne murid saadix la sëñ Tuubaa képp la gëm te ma xamee ne sëñ Tuubaa la gëm su ma nettalee lii may wax sëñ Saliou Mbacke ko wax sëñ Saliou daa am ku ñëw ne ko nu ñuy natte nu ñuy natte lu sëñ Tuubaa nangu dañoo bëgg xam nu ñuy natte lu suñ tubaa nangu sëñ Saliou ne su ngeen di nattati lu suñ tubaa nangu na ngeen xool xoli murid yi nañ ca mel su murid yi nangoo ni diw li muy def dëgg la suñ tubaa nangu na ko te ku toog fii soo dee nitu dëgg da nga nangu ne kii li muy def suñ tubaa nangu na ko nag kon nag kon nag te nag daa bokk ci njàmbaar sëriñ bi mane daa daa bokk ci njàmbat daa bokk ci njambaar am aw tiis ak ku métit téye ko ci sa biir bañ koo wax nit ñi Serigne Mountakha ibnu Cheikh Mamadou Bachir bi ñuy julli korité dane na nit ñi bàyyi njàmbat yi suñ bàyyee njàmbat nañ ci teg nañ ci teg beneen muy jël sëñ Tuubaa teg ko fiñ ñu ko war a teg daan ne suñ bàyyee njàmbat dootu ñàkk dara sëñ Tuubaa fàggu na suñ jëlee sëñ Tuubaa teg ko fañ ko war a teg dootuñ soxla dara te amuñ ko daa di wax ne su fekkoon am na ñu war a ñee màkka képp lañ war a ñee ak madina te ñeewuñ màkk ak madina sëñ Muntaxa ko wax kon nag loolu nañ ci bàyyi xel nañ fexe ba doon ay murit xam ne li ñuy wut ci sëñ Tuubaa la ne lu dee wut lépp a ngi tey jii nu def ko fi yow lu dee fi wut nekkatul màkkaa ki faasa ki xaay fu as njëriñ masa nekk ak barki jóg na fa tey ay xotta des fépp yow Ahmadou Bamba képp yaa di ñaay na ngeen ma du ngeen ko gis mukk mu ñëw Sarsara am lu mu yónnee ca marché bi mu ñëw ci moom bu du suukar bu du suukar te suukar si kafe la. Eh, maam Issa daa fayee ko si fii xel koom benn ci gannaaw gis nga ni bindee mbooloo fii na la yóbboo nit ñi koom dinañ liggéey la ñu nekkandoo fa weer Cheikh Abdou Lahad Cheikh Abdou Lahad yaa des góor yaa nga xoolal ku iñaan du sant ku iñaan du seede ku soxor du seede li nga seede fukkee ak juróom benn ci gannaaw laa wax def na weer xel comme ñoo fa nekkandoo xoolal buy togg di jox nit ñi di xëy dem ca tool ya da ngay fayeeku si kenn mënu ci dara da sa maam suñu doo fayeeku si woon soxna si yow noo tudd man Adja Koom Ñang Adja Kom Niang yaa ngi doog a ñëw Sarsara wala. yaa ngi doog a ñëw Sarsara. Mhm. jóge Dakar amoon 5. Mhm. doog a ñëw Sarsara. Mhm. ndax bokk nga ci ñu wax sax dem Màkka wala déet. ma demee Màkka ak naa ñetti at. ñetti at waaw. Ah, comparaison diggante Màkka ak Sarsara ni nga gis ni Adja ji mel foofu ak way sayaari Sarsara yi. man de daraje Mouhamed mënu ma leen a xàmmee damaa kontaan. ndax mënu maa xàmmee fi mu ne nii Màkka. ak kaw saar ak kaw Sarsara Sarsara te it macha allah bi ñu xëyee ba armal màkk rek la ma jox te képp ku fi mës a na la fi yàlla indi may ñaan nag waa sama waa amoo Dakar waa amoo cinq gëm a dëkk suñu borom indi leen suñu borom indi leen kaw saara indi leen sa sa saara. dafa may fàttali magi Mouride ya dañ daan xotti yoon ya di ñëw di fekk si fi Serigne Touba di ñàkk seen alal di leen rey ci yoon wi waaye lépp nu mu leen mën a coûter rek ñoom jaraloon na leen ñu ñëw fi fekk fi Cheikhuna Cheikh Ahmadou Bamba kon lii doon na mbir moo xam ne kenn waru ko doyadal ndax Serigne Touba bi mu nekkee fii ci Mauritanie amoon na ak jokkoo ak seen maam yu baax yi di borom xam-xam yi ak kilifa yi Mauritaniens yi di jëflante ak moom ngeen gaa rafetu jëflante ndax daf leen a jàppe woon rek ay jullit ci yàlla ndax innamal mu'minuuna ixwati jullit naka way gëm yàlla yëpp ay mbokk lañ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na al muslim aqul muslim jullit jullit ay mbokkam waaye jëflante googu mujj na doon ay siyaarante ak i weccante ci fii ba njaareem ci résidence Chinois yi bañ ko téye woon daan fa ñëw mag yi naare di ko tagg ay xasida yu yéeme waaye boobu ba léegi relation bi dox ci diggante ñaari réew dafa doon relation bu yitteel ñaari gouvernement yi ndax population bi dañoo bëggante moo tax ñu ngi koy garder bu baax a baax di ci sonn kon du doy rek bu ñu ñëwee fii ni comme ay murid lañ dañuy ñëw di siyaare wala di barkeelu comme ni ñu ko daan waxee ci suñu discours yëpp passé dañoo ñëw war a doon comme ay taalibe yu jóg di xeñtu jeexite seenub sëriñ na ñu xam dëkk dëkk àq li sëriñ bi doon jànkonteel fii àq ji sëriñ bi doon jànkonteel fii ci Mauritanie dina delloo suñu soo soobu cofeel ci sëriñ bi ak dëggug aju ak ndollanul góorgóorlu ci suñuy soobu ànd ak sëriñ bi. mu mel ne li mu doon xeexal moom muy xeexal lislaam ndax mboolem kilifa yi yi ci àdduna bi tey ñu mën nañoo wax ci taarix mu nekk ay suufa ay wàllu ñoom ñëpp ku ci nekk doon nga ñëw di wane sa cofeel ci sa diggante ku tedd waaw doon nga ko wane moo tax bi mu dikkee fii fii la ko sëriñ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fekk fay ko. ndax dana tukki bee dama doon liggéey fii dama doon fayeeku si moo tax sun li ma la ko waxee léegi yasuuquuna turuxa suñ maam yi dañ daan xotti yoon ya ñëw ngir bëgg a fekk si Serigne Touba fii ngir bëgg a jariñu daan nañ faatu ci yoon bi ñàkk seen alal waaye nu mu leen a coûter rek jaraloon na leen ko waaw bërëb bi di ardu saalihin bokk na ci surafaa yi nekk ci dëkk am na ñoo xam ne dañu bàyyi seen yitte ñëw ba ci bërëb bi di fi di def ay ziyaara ko ñoo ko nekk seen bopp waaw mën nañ cee tudd Haas Misri jàmbaar ju baax ju sell ji nga xam moo ñuy defa teranga yi moom nee na guddi ajuma gu jot dina ñëw fekk Sëriñ Tuubaa gis ko ci baatin mu fajal ko ay soxla te kooku waa kër Baay Ñas la kon ñu xam ne Sëriñ Tuubaa mi ngi fi ba léegi nga fenn ñenn ci ay taalibe di sàkku ne yoon a defaraat loolu bokk na ci xaaj ministre bi wax moom sàmm na tamit maanaam defar ko waaye tamit boo sañoon na nekk ba ci doon bi mën nañ ko defaraat loolu du dara xaalis dag koy defar Sëriñ Tuubaa am na lépp waaye il faut ñu xam nag dëgg dëgg àqali Sëriñ Tuubaa doon jànkonte fii ndax métit yam doon def ña doon faatu ci yoon il faut ñu jël ci barkeelu ca tuuti ndax ñun ay 4x4 la war ba egsi waaye bu egsi ñëpp dañuy def kon sonnoon nañ kon il faut ñu barkeelu ci waaye bu fekkoon defar rek ba tey egg ndax Sëriñ Tuubaa mooy borom lépp waaye il faut nag ñu barkeelu ci ñu ko Sëriñ Tuubaa Sëriñ Saliou Mbacke radiyallahu anhu waxoon na ne su ma leeroon ne dem nañ xel ko ma bàyyi woote xel ko waaye man mi su ma leeroon ne ñëpp ñëw nañ sat saara yoon wi danañ ko defal asna wujo fil Mauritanie Cheikh Ahmadou Bamba taxama maxale wula maaye aje laay Mauritanie bi ahsani muhamalati wata babaduli bi ixtibaaram ihwatu fillah يشرحون طرحا للمحاولة الوصول إلى سيهم مهما كلفه ذلك من فوت نفسه والدياء مالك هذا شيء لا يستهان به